Le xaalis bu mu yëkkati woon daal di koy joxoon ki nga xam ne que moo di Marie Le Pen alors voici les fonds spéciaux qui s'élèvent à plusieurs milliards de le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu daal di koy énuméré récemment euh, si nga xam ne que euh, conférence de presse bi nga xam ne doon na ko daal di amal jàpp ni boo mu ñëwee si kees si fekk fa dara alors lors d'une conférence de presse bi nga xam ne tam doon ko amal ni ki samedi 13 juillet 2024 euh, fonds yi ne nekkoon ay plusieurs milliards alors, euh, il exime, il, il, existe justement une énorme opacité concernant la somme exacte, car aucun contrôle n'est exercé sur ces fonds portant issus de l'argent euh, des contribuables. Madame, euh, ben contrôle amul si li et que askan wi alors catégorie des fonds spéciaux fonds Sénégal fonds secret politiques, fonds de solidarité africaine fonds d'intervention sociale

spécial c'est-à-dire des fonds spéciaux ban jàng nga si def concrètement par rapport ak wàllu wu ni mel. xam nga balaa yàbb sénégalais mooy balaa ngay poser question fan la ñu toll ci la suppression du de commande de la caisse noire. comme ni ko diggoon seen campagne. oui da ngay da ngay poser la question ana xaalis bi waaye waaye waaye c'est ça foofu nga war a njëkkee balaa ngay ne ay ñoom jomaay fan ngeen toll ci la suppression de la caisse noire hmm. da ngay poser d'abord ana xaalis bi nekkoon ci caisse noire boobu ana ñan ko hmm. la wax fi ni caisse noire tey baaxul parce que caisse xaalis bo xamantene yow li tax ñi créé lolu yow bobu fofu li li tax ñu créé caisse noire bobu hmm. mais ñom utiliser wuñu ci la baaxul ba la lu ci caisse noire du ko contrôler kenn du ko contrôler moo tax nga gis sañ-sañ ñu am audace ba dee waa Benno Bokk Yaakaar di organiser ay points de presse mm. di ils ont utilisé que 22% ou pour wala de la caisse noire c'est faux c'est archi faux parce que xam nañu ko du ko ko contrôler moo ils donnent ces chiffres là xam nañu IGE du ko contrôler nous avons Synpics du ko contrôler rmp du ko contrôler OFNAC du ko contrôler kenen ak IGF e, du ko contrôler mota sénégalais ils n'ont utilisé que 22 de la caisse de la caisse des fonds politiques. Mm. c'est faux c'est archi faux dama c'est archi faux man mako wa je leur défie nañu dem génné sénégalais les 24 voilà les deux les 22 ils utilisent la caisse noire publier ko nañ ko publié publiquement

te ñoom lii ak li lañu utiliser ji yóbbu ko fi yóbbu ko fii ba paré ñu bàyyi sénégalais def sen propre calcul. sénégalais dinañ xam ñaata pourcent lañu utiliser fofu fofu la waxé gis nga parce que bo ñom dañu xam ni que aucun corps de contrôle ne contrôle cette caisse là. mota ñi na no non jomaay woy lu mu wax ni amul ñun ñun de 22 pour lañu kese fofu 22 légui cent léegi ñu gëmloo sénégalais ni que ils n'ont ils utilisé que 22 Si utiliser 22 il y a 100 78 78 pour cent. au euh, sénégalais Les sénégalais voilà voilà c'est ce qu'ils veulent faire croire aux sénégalais dañoo bëgg sénégalais ni que le deuxième mandat que Macky a fait. Hmm. wala le dernier trimestre que Macky a fait ils n'ont utilisé que 22 ñu bàyyi 78%. soixante dix huit pour bëgg wax sénégalais yi du loolu la bëgg wax sénégalais yi loolu la ne c'est faux amon? c'est faux. Les li ñu Yo, qui de le dernier trimestre la ci la ñu campagne yaa ngi fàttaliku. Hmm. yaa un fàttaliku ci la ñu campagne électorale. Mais trois mois yi mujj. waaw trois mois yi mujj. du fofu lañu amé campagne électorale. wa 3 mois muju wa wa parce que Diomaye mi ngi soog def 3 mois. mi ngi soog def loolu loolaa la wax non non dama lay wax là où c'est faux ñom luñ doon wax c'est faux. non non euh, non non non non euh, euh, pare euh miri ba paré ne su nekké manam semaine bi nako nako nat ak comparé Diomaye semaine bu mu génnee. dama né dernier trimestre bi c'est la presse c'est la presse dernier trimestre bi trimestre 90 jours la. dama né dernier trimestre Macky Sall la wax waxuma Diomaye de dernier trimestre Macky Sall bala muy wàcc. Hmm. c'était en avril. fallait lañu déclencher la campagne électorale Macky Sall était là ñom Benno Bokk Yaakaar fall lañ doon jël di def sen meeting yoy fall lañu jël di fall lañu tib di def la concession des t-shirts de Amadou mais qu'est-ce que ñuul gi. dama né t-shirt Amadou Ba yooyu te mu am photo mu fofu ces titres-là ne sont pas été, n'ont pas été consommés au Sénégal. Aucune, entre, aucune entreprise sénégalaise n'a gagné ce marché-là. En Chine. Mm. Ouais, mais c'est les <laughs> ma lay wax ni socialement kenn lu lu am la. Ils ont ñu doon gis euh, ban banderole. banderole Amadou tout ce qui est de la publication de la publicité de Amadouba petit ba aucun aucune entreprise sénégalaise n'a, ne l'a gagné. Yo pour yo, quand boobu kan moo le wa Benno Bokk Yaakaar fan lañu jël di financer loolu ah loolu lañu bëgg gëm lo Sénégalais ni que ils n'ont utilisé que 22 de la caisse noire Voilà les fonds politiques ay fonds politiques la tudd de. Hmm. <laughs> wa damay jundju rek ay fonds politiques la tudd nga né yow 22 nga jël te ñu ñu gis fi lu né alors merci beaucoup. gis fi lu né il faut arrêter Nous sénégalais yi Nous jaajëfal ce pays là dans dans dans dans dans des mensonges Nous wàcc ngay continuer de mentir à ce peuple il faut arrêter Merci beaucoup. Si tu gouvernes ce pays-là pendant 12 ans de mensonges, ouais, il a, il a une audacité, il y a am audacité, gentleman. C'est une affaire de gentleman. Les mm. Sénégalais, c'est vrai que nous avons échoué mais ce nouveau régime là pour réussir pour l'intérêt commun mais quand il ment pendant 12 ans nous remplace là, tu continues de mentir en organisant des points de presse bien affaire la non beneen affaire la. merci beaucoup franchement. Alpha sa ngërëm ñenn la bu baax a baax a baax ñu lay jaajëfal encore une fois je vous rappelle que aussi assemblée nationale ces fonds spéciaux bi nga xam ni itam destiné nañ ko toll na si nga xam ne que moo di cinquante milliards euh, cinquante millions de francs chaque mois assemblée nationale dina ko bénéficier wu primature aussi euh, dina bénéfi euh, dina bénéficier wu aussi benn somme bu conséquent waaye itam conseil économique social et environnemental aussi en deux mille vingt trois le budget était estimé à 7 milliards. Euh, 641 millions 40 284 francs pour ce conseil économique social et environnemental et euh, au conseil des collectivités territoriales du HCCT aussi bougiem en 2023 tolonne 9 milliards 168 euh, millions euh, de nos francs euh, donc nous fonds spéciaux pour ces institutions sénégalaises merci beaucoup d'avoir suivi mais également l'ensemble justement des équipes en <laughs> c'est que parfois da quoi. mais moo tax yéen yi dama la koy accepter dama la koy nangul mais du sa jëmm. waaw <laughs> ah, loo bëgg a wax voilà donc euh, maa ngi lay jaajëfal bu baax Sëñ hmm, Fallou di amaat mbégte ak contentement donc di partager mission bi ak yow. Hmm. donc ak sénégalais yi ñi doon seetaan. Sëñ Cheikh jum fële ci Abidjan ñu ngi koy jaajëfal bu baax mon frère Véronique Sarr ñu ngi koy jaajëfal bu baax di jaajëfal euh, Jacqueline donc troupe donc ñu ngi koy jaajëfal bu baax baakar yi Diémé. Euh, mon frère maa ngi koy jaajëfal mu ne Arfan je veux vraiment un jour te voir à l'Assemblée nationale du Sénégal donc c'est euh, ah, le Fallou yéene la de. Arfan Amin, da ngay Amin, Amin, Amin. Amin amiin amiin amiin Bakary Diémé. yow xam nga nii. Hmm. man suma ma assemblée nationale Guy Mari Sagna sa ma maa koy gën da ngay brouillé nopp du ah, Guy Marius Sagna sax man maa koy gën voilà il pour l'intérêt de tous les Sénégalais Bakary Diémé merci beaucoup di jaajëfal aussi euh, ñom ñëpp hein. donc ñu melni euh Ismaïla Wali donc ñu koy jaajëfal Amadou Seck hein. donc continuation merci mon frère Amadou ñu koy jaajëfal bu baax di jaajëfal Fatou Bodian feulé ci euh, Paris en France C'est Omar Djedjou ñu koy jaajëfal di Moussa Samb mon frère depuis Italie di jaajëfal ñëpp ah ñëpp ñëpp ñëpp donc euh, di leen souhaiter une excellente euh, journée à toutes et à tous euh, di leen ñaanal donc ci nouvelle année. de calendrier musulman bi di leen ñaanal di ko sakku it ah, donc di leen jaajëfal di leen baalu ak di bal ñëpp sëñ Fallou di jox dig daje suba ci même et même heure inchallah merci beaucoup ni lay jaajëfal à voilà mesdames messieurs c'en tout votre émission le Togo de matinal. merci à vous de l'avoir suivi mais également l'ensemble justement des équipes en régie merci beaucoup de votre conscience et de votre fidélité dans quelques instants je vous retrouve à nouveau dans le midi vous d'ici là excellente suite de nos programmes sur Sénégal 5 TV l'information continue sur sénégal5.com notre compte TikTok qui s'élève à plus de 700 000 abonnés. N'oubliez pas de le visiter exactement disponible sur l'application TikTok Sénégal 5. Sénégal5.com bon euh, bonne journée à tous et à tous.